di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi suivre seen bi di li xew TV di leen wax ngeen gën di continuer di abonné wu di partager vidéo yi ngir gën a mën a yaatal liggéey bi donc comme niñ ko daan defee ak yéen tey waa lu xew TV dañoo siwaat di leen defal analyse ci seen série maîtresse d'un homme marié gannaaw ba ñu seetaanee épisode numéro cinquante di dernier épisode ci saison numéro une bi dañu amoon quelque point yu ci noté woon bëggoon ñu def taxaw seetlu ak yéen mais avant cela ñu ngi leen di rappeler numéro bii di affiché mooy suñu numéro service commercial numéro bi am na whatsapp donc képp koo xamante ni si nii am nga commentaire boo bëgg a def ci série bi di maîtresse d'un homme marié mën nga ko jël nga envoyé ko directement par vocal ci numéro bii. di wax nag numéro bi amul group parce que souvent nit ñi dañuy woo naan ñu pour ñu dugal leen ci groupe bi mais amul group da ngay envoyé sa vocal directement rek bu ñu ko jotee incha allah dinañ ko jàllale. ñu leen di ñaan aussi bu ngeen di commentaire ngeen commentaire loo xam ne ku ko déglu dina ci mën a jariñu parce que souvent dañuy jot ay commentaires yoo xam ne uniquement dañ naan la man diw dama neex Marème moo ma neex wala kii moo sama acteur. donc ñun dañuy bëgg tey commentaire yi nga xam te ne ñu ngi koy jàllale ku ko dégg mën ci jëlee njariñ donc ñu leen di ñaan képp kuy envoyé sa commentaire nga envoyé loo xam ne si nii ku ko dégg dina ci mën a jariñu et li waral tey jii ñu fi bàyyi suñu numéro di leen permettre pour ngeen di commentaire ñu koy jàllale c'est parce que am na ñoo xam te ne ñi ngi suivre série bi ñi ngi ci coin yoo xamante ni dañu reculer xëy na tey caméra mun leen fa fekk di leen jël pour ñu wax seen xalaat wala tey ñi ngi tëdd ci loolu hôpital peut-être que ñi ngi suivre série bi am nañ ci xalaat wala tey ñi ngi seen biir néeg mënuñu génn donc bu ñu fi bàyyee numéro bi pour permettre ñooñu nga xamante ni tey am nañ dara loo xamante ni si bëgg nañ ko wax ci série bi te jotewuñ fu ñu koy waxee ñu mën ko envoyer facilement par vocal ci whatsapp bi ñu mën leen ko leen donc ñi ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi envoyer sa vocal nga envoyer loo xam te ne tey ku ko déglu rek dina ci jëlee njariñ et di féliciter waa Marodi TV ci li nga xam te ni si nii indil nañ ñu ko parce que maîtresse d'un homme marié bu ñu xoolee dafa am ay thèmes yu bëri yoo xamante ni si nii daf ko regroupé te déjà épisode tay bi rek gis nañ ci xaritoo bu yàqu yaakaar bu tas mariage boo xamante ni si ni mujjul sotti gis nañ ci ku àddunaam yàqu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni si nii épisode tay bi rek regroupé na ko te dafa doon loo xamante ni si ay feela yu ñuy dund suñu société donc ñoo ngi félicité waa Marodi TV ci liggéey bu am solo boobu ñu ñu présenté bien vrai que nag parfois dina am ay kato yoo xamante ni mën nañ ko critiquer et àdduna noonu la à chaque fois tey boo présenté quelque chose rek dina am lu neex nit ñi am lu naqari nit ñi ñuy wax nit ñi à chaque fois nañuy jéem a jël li leen neex di ko muñal lu leen naqari parce que lépp mun a parfait nit def dara lépp jaar yoon loolu suñu boroom kese moo ko mën. alors tey point bi ñu bëggoon a njëkk analyser mooy li nga xamante ni moo dal Marème waxoon nañ ko fi ci suñu vidéo yi weesu muy tey nit ki di nga def dara naan da ngay dox sa ndaw nga dem ba ci kanam loolu dab la tey Marème li ko dal ci paaseem la amee woon xëy na ba mu koy def. xalaatul woon ni dina agsi fii moo tax ñuy wax ni ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la parce que jamono day dox na dafa gudd tànk te lépp loo def ci sa ginnaaw mën nga dem ay ati at mu dabuwaat la te bu fekkee doonul woon lu rafet bu la dabaatee rek day ñaw te mën na la yàqal lu bëri te ku ne mën na jël ci exemple bi nga xamante ni si ni moom moo dal ma ci série bi mu doon loo xamante ni dafa bëri léegi ci réew mi parce que souvent yaa ngi dégg ay scandales yi am ci WhatsApp yi yaa ngi dégg aussi diw jël nañ ay photos tas ko ci internet bi et tout donc loolu lu jar a moytu la surtout yéen suñu sœurs yi ngeen di sóoraale que ni tey jii nii deru jigéen lu ko yàq dafa yomb donc am na yu bëri yoo xamante ni dañ ko war a mën a moytu. parce que àdduna dafa gudd tànk trop te à tout moment sa vie mën na bouleversé wu. ndax bëri na fi ñoo xamante ni erreur yi ñu doon def ci passé bi moom moo leen dab. xëy na sax ba mu leen di dab fekk nañu changé bàyyi nañ lépp luñ doon def mais nit ñi ñoo ko dul gisee noonu dañuy jàpp ni yow noonu nga mel ba léegi lu ñu wax la ko te yaakaar naa loolu lépp ku koy sóoraale doo def yenn yi donc bu ñu jógee ci point boobu dañuy ñëw ci Lalla Lalla tey li mu def je me demande est-ce que wujje jar na ko est-ce que wujje jar na nga yaa ko dund doomu aadama parce que moom déjà elle commence à regretter mi ngi toog di jooy te loolu noonu da koy poursuivre mën na ko yàqal tamit benn partie ci dundam et peut-être même Cheikh mën na découvrir que ni Lalla moo tas photo yi mu fase ko ci on parce que ku gis Cheikh ni muy doxalee xam ne ku bëgg Marème la loolu rek mën na ko pousser à ce que bu xamee ni Lalla moo tas photo yi mu indi ko ci problème ba may ko ci baatam te su boobaa li nga xamante ni moom Lalla doon yéene Marème mooy këpp ci kawam et man franchement je me dis que ni wujjee jarul ngay yàq dundu doomu aadama wujja jarul nga yàq diggante ñaar ñuy ànd parce que déjà tàqale ñaar ñu bëggante rekk dafa doy dafa doon loo xamante ni si bàkkaar bu mag la donc yéen ñi nga xamante ni si yéen a am wujj di def le tour ba di tàqale seen wujj ak seen boroom kër bàyyi leen xel ni tàqale ñaari doomu aadama bàkkaar bu mag a mag la te aussi ëllëg suñu boroom day àtte bànneexu àdduna jarul yéen nii te tey li nga xamante ni si moo dal Marème moon na dal ku ne. parce que bëri na ñoo xamante ne ñi ngi def dara bi ñuy nekk xale duñ ci bàyyi xel dem ba génn ci lu mel noonu mu dabaal leen ci seen avenir te fii je pense que la plus plupart ci ñun kenn ku nekk am nga loo xamante ni mës nga ko def tey jii ku ko génne woon tegal la ko ñu bëri mën nañu ci bàyyi. donc pour man wujje jarul di fuyete ci passé jàmbur di wut loo xamante ni dinga ci mën a yàq deram pour tas parce que da gis nit ñoo xamante ni si lu ne leen di jëral uniquement pour yàq seen moroomu wujj parfois nag mën nañ ko def ba pare di ci am ay sentiment de regret te su boobaa li ñuy wax rek réccu day fekk jëf fees parce que liñ ko bëggee woon day dem ba ëpp leen loxo et loolu sax mën na dem ba këpp ci seen kaw loolu moo waral ñu naan ay du yem ci boppu borom ba tax na daal lu dul jàmm man dama jàpp ni jàmm moo ko gën wujje boo ko wërsëg la xëy na aawo nag duñu d'accord ak man ci benn côté bi parce que série bi demoon naa ba gis ni commentaire yi moo doon jot dafa mujjoon a nekk série boo xamante ne diggante aawalo ak ñaareel aawo yi faral laal la <laughs> ñaareeli faral mareem mais c'est ça la vie quoi kenn ku ne position bi nga nekk da ngay bëgg a def le tout ba ni position boobu moo gën mais dina am ci ñoo xamante ne dinañ comprendre que ni ñaar yëpp benn la parce que ñoom ñaar ñoo bokk luñ bëgg alors bu ñu jàppantee rek jàppandoo seen kër dina neex seen sëy dina te dinañ ci am njaboot gu barke parce que kenn ku ne li nga liggéey sa biir néegu sëy lala la sunu borom di fay donc ñu delloo siwaat xel yi jéem a yéenante jàmm te xam ni comme ni ñu koy waxee rek dërëm bi génnul gaal gi ñaar ñoo xam ne nag dañoo bokk lu ñu bëgg war nañ mën a jàppante pour li ñu bëgg tey ñu jéem a xool ne lañ koy sàmmee ba mu gën a taaru donc loolu moo nekkoon ñaari point yi nga xamante ni si nii ci lañ bëggoon débattre yeneen point yi gis nañ jalika tey métit bi mu dund depuis le début ba ci fin saison numéro une bi et on voit que ni moom pour nga wax ci moom sax day xaw a diis parce que depuis loolu métti rek lay dund et peut-être que su saison deux amee viom dina changer may dégg nag am ñoo xam ne naan du yoon viom dafa waroon a changer parce que depuis mi ngi dund lu métti kon seen normal mu dund lu neex c'est bien beau parce que ñun sénégalais dañ taamu képp ku nit nga nekk ci naqar rek jàmm lañ lay yéene. mais ñu am yaakaar ni rek saison 2 bi su amee naqaram yooyu yëpp dina dem ba mujj nekk mbégte ñu gis ni aussi yi dëgg bi mu doon wër depuis très longtemps jouru mariage am ci la xam lépp bi mu ko xamee doon na lu ko choqué donc nit parfois dina toll foo xam te ni doo bëgg lu dul xam dëgg bi doo bëgg lu dul xam li xew mais parfois aussi day gën nga bàyyi benn mbir mu sedd jéem a dunde noonu parce que li nga xamante ni moo am boo ko xamee mën na yàq sa àdduna lu bëree bëri donte du yomb muñ parce que am na ñoo xam te ne dañu bañ kumpa ñoom dara waru leen umb dañuy def le tout ba découvrir li nga xam ne moo am mën nañ ko découvrir mu nekk loo xamante ni si ni mën na yàq seen àdduna définitivement alors tey gis ngeen li nga xamante ni moo xew bi ko Bakary waxee dégg bi donc parfois nit a ngi xëccu jëm ci dara pour bëgg ko xam te mu doon loo xam te ne su ko xamee dina yàqu lu bëri ci àdduna donc série bi dafa dajale ay point yu bëri ñu am lu bëree bëri loo xam te mën nañ ko ci jàngat mais quand même dañuy yemale fii vidéo bi li ci des ñu ngi koy bàyyi ak yéen képp ku ci am commentaire nga envoyé ñu ko par whatsapp incha allah buñ ci jotee dinañ ko dugal di leen ñaan commentaire yi ngeen def le tout ba mu doon loo xam te nit ñi dinañ ci mën a jariñu kenn ku ne mën ci jëlee njariñ di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah merci à tout